janvier atum 2022 retrouvaille Bamba Fall Khalifa Sall li sabab li ni mel bokk na si boobi la retrouvaille Bamba Fall dafa bëgg a toogaat ci bopp mairie Médina naka noonu Khalifa Sall dafa bëgg a gañe lii di ville de Dakar Cheikh Omar Sy njiital grande force citoyenne GFC doomu Gueule Tapée Fass Colobane di xamle ci yéenekaay bii di l'info ku jéggi Khalifa Sall PDS naka noonu Ousmane Sonko dañoo war a boole seen doole ngir mën a janoo ak mouvance présidentielle ngir bu ñu bëggee bii di Walf Quotidien def taxaw seetlu ci néo converti muy ñu fekki nguur gi Abdoulaye Baldé Talla Sylla ay Sy Aïssata Tall Sall ndax seeni avenir ci election locale yi dafa tàmbalee taq suuf majorité présidentielle dañoo bëgg seen toog bi ndax ci ndakaaru maire yu bëri yu ñu fal ci coalition taxawu Dakar ñu ngi faree ak président Macky Sall rawatina Moussa Sy Amadou Ba dafa bëgg toogu Moussa Sy sa Parcelles Assainies yëkkati ay kàddu yu dëgër te njagas ka nekkoon ancien chef de cabinet maître Abdoulaye Wade Pape Samba Mboup te léegi muy taxawu njiital réew mi Macky Sall coowal passeport diplomatique ci bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di témoin daanaka pënd bi wuréegul ci coowal passeport yi ci xalima Assane Samb àdduna bi mu ngi ñuy tëggat ndax dina am retentissement ci senegal ak ci frontières yi ndax ay personnalités yu bëri ñu ngi leen ciy joxar bi baaraamu tuuma bu ñu doyloo jàngatu Assane Samb ci réew mi quotidien beneen njombe ci yéenekaay bii di libération mi àddu ci trafic certificat de nationalité procès fictif ak passeport diplomatique El Hadj Diadji Condé ak député yu ak député yu faree Benno Bokk Yaakaar ak benn conseil départemental ci atum 2017 jàpp 2021 force de sécurité yi dañoo def liggéey bu am solo section de recherche division des investigations criminelles ngir mën a teg loxo defkatu ñaawteef yi beneen ñaawteef ci yéenekaay bii di l'observateur def gëstu bu yaa ci soxna yu am ñaari borom kër yenn ci soxna yi tas dañuy dund lu met ndax seeni ex jëkkër dañu leen toroxal muy phénomène bu jéggi dayoo laas di ñu xamal jaaji Condé dina gën a dugg ndax plainte bu bees benn guinéen mooy sàkk Alioune Bakkat enquête bi dafa mel ni dafa tàbbi géej mu dubbee ko enquête au point mort ndax gouvernement bu Sénégal dafa fësaloon ab mémorandum ci juróom-ñetti fan ci weeru avril 2021 ñu génn juróom-benn weer ba léegi France daal di xëddeen ngi xaal enquête bi ak résultat yi ba léegi gisaguñ dara ci élection locale yi CDC muy caisse de dépôt et de consignation dina recevoir caution yi ci première jàpp fanweeri fan ci weeru octobre atum ñeel parti politique yi